une fois vive la République et vive le Sénégal mbokk yi ginnaaw bu ma Sénégal Je suis ci biir mi ak ñi ci bitim réew kaddu yima yëkëti yëkkati léegi doonte firi nañ ko ci kàllaama wolof dama bëggoon sànni tuuti kaddu ginnaaw bu ma nuyoo waa réew mi yépp di fàttali ni suñu réew fan yi ñu génn gis nañu fii ay jafe-jafe yu tar loo xam ne Sénégal mosu ko xam ci ay yàqute ci yàqal nit ñi seeni alal bàyyiwuñu kër bàyyiwuñu l'hôpital bàyyiwuñu benn service ay doomu aadama boom nañ leen muy xale yu ndaw ñoo xamante ni ah, seen njaboot soxla nañ leen lu ko indi politique ak jàpp ne boo mënee indi ay xale teg leen ci mbedd ñu lim ay dee yu bari dana tax nguur gi fi nekk nemmerlu wala ñu yàq ko su ko defee yéene yi nga xam ne ñi fi nekk di ko doxal ak ñañu bokkal bitim réew te mu leer naññ na tey jii dafa am connexion bitim réew ak ñi ci biir réew mi ngir yàq Sénégal loolu laa ne bëgg naa waa réew mi ubbi bu baax seen bët bàyyi ci xel loolu nag dama ci woo képp kuy responsable politique ak boor boo mënti féete képp kuy kilifa ci réew mi kilifa diine kilifa aada képp kuy société civile képp kuy citoyen war nañu bàyyi xel ci suñu réew ndax dafa am lu ñu xamee Sénégal mooy réew moo xam ne waasoo amu fi bokk ndey bokk bàyyi donte nit ñi mën nañ bañ a bokk jëmuwaay walla xalaat loolu moo waral may wane tiis bu tar ci xale yi fi faatu diggante deux mille vingt et un ak deux mille vingt trois bi nii loolu nag maa ngi koy jaalewaat seeni mbokk di ko jaalewaat réew mi yëpp di wax ne lépp lu ci war état bi def na ko ci wàllu ay enquête ngir justice muy tribunal saytu li nga xam ne moo waral musiba yooyu ak ña nga xam ne ñoo ko yëkkati ak ñañu ci àndal ak ña ko doxal seen bopp ñoom ñëpp danañu wuyu ci yoon ngir ñu mën a fànq lu mel noonu ndax lu yàq réew li ci des itam wane naa ne réew mi dañ ko war a waxtaane dañu war a di diisoo ci lépp loo xam ne dañu ko bokk looloo war a loon diisoo bi ma yëkkati fan yi ñu génn ñu tuddee ko dialogue national yàlla def ñëpp ñu ci bëggoon dugg te solo ci réew mi yàlla def na waxtaan nañu ba juboo am ay conclusion manam yu ama am solo ci walu tu ci walu euh, social ci walu culture ci walu politique ba nga xamanteni lolu dina gën a suñu démocratie ponk yoyu nak ñu tënk dinaa ko doxal à partir de semaine bi ndax dinañ yóbbu assemblée nationale loi yi ñu war soppi ngir li ku jéggi ñaanoon ci wàllu parrainage élection ak yeneen i changement ci code électoral ak yeneen i loi ñu mën ko def ci diir bu gàtt loolu yëpp parce que diisoo moo ko waral parce que luy jëmale Sénégal kanam li ci des itam wax naa ni réew mi fi mu toll ak alal ji fi feeñ dana gën a tax nit ñi bëgg a ñëw Sénégal wala am lu fi def ci fànn bu nekk nag ba ci diine ji loolu dafa jar a bàyyi xel moo waral ma ne man sama taxawaayu démb ak sama taxawaayu tey benn lay doon muy taxaw ngir aar réew mi ci wàllu indépendance am ci wàllu ay frontière am ci wàllu ay institution am yi nga xam ni démocratie moo ko fi teg te loolu duñu seetaan mukk ñu koy yàq ak lu mu mënti jar donc loolu nag fii yàlla ngi ñuy may bakkan fii yëg mandat bi ñu jox ñu ngi koy doxal na leen leer ne danaa si taxaw taxawaay yu wér ànd si ak ñëpp ñu nga xam ni ñoom laa ci war a àndal ginnaaw loolu mbokk yi nee na mbirum élection yi di ñëw coow li bëri na coow li bëri na euh, d'abord may rafetlu ñi nga xam ne dañu ànd ak man ak bëgg ma toogaati bopp réew mi wane ko ci anam yu bare bare ci région yu bëri ci réew mi yëpp ci diaspora bi wane ko ci coalition bi muy coalition Benno Bokk Yaakaar ma santaat leen gërëm leen wane ko ci parti bi ma taxawal muy Alliance pour la République bëri na ñoo xam ne sax ay kilifa diine lañu ay citoyen tout simplement jàpp nañu ne fi réew mi toll président war na mën a taxawaat surtout que am na ci yoon yoon may na ko ko muy constitution bi ndax lu leer la 2016 bi ñu ko defee 2016 bañ ko defee conseil constitutionnel ci boppam moo joxe woon ndigal ngir ñu dindi disposition transitoire bi ma ci defoon ngir ñu mënoon compter mandat bu njëkk bi loolu nag donte am naa droit bi donte itam ñu bare bare bare seen sago moo doon tey ma taxawaat

ngir ñu moytu li nga xam ne dina tax Sénégal saaraan ëllëg dugg ci guuta goo xam ne du gën ci njaboot gi du gën ci askan wi kon sant naa ñooñu gërëm naa leen waaye nee naa nag élection yi di ñëw bind naa ko ci livre bi ñu tuddee le Sénégal au cœur Sénégal sama biir xol boo ko gisee di ngeen wax xam ni ne woon naa mandat mille dix neuf bi mooy nekk sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas ma ci droit loolu sama décision bopp la te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat. donte nag gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim réew yàq deru Sénégal yàq deru président la République dafa bëgg a def ñetteeli mandat dafa bëgg def lii dafa bëgg def laa loolu kon war na mën a dakk ndax président ci boppam jàpp na ne li mu bind deux mille dix-huit dëgëralaat ko tey loolu taxul maanaam coow yooyu taxul waaye ñawlu naa li nga xamante ne bëgg sa bëgg-bëgg tax na nga dem di jaay sa réew ak di yàq deru sa réew ah nit ki booy wut tam da nga ci boole ngor parce que loolu dafa am solo li ci des mooy ñu continuer suñu taxawaay ci réew mi continuer waxtaan ak ndaw ñi parce que avenir Sénégal ci ndaw ñi la nekk suñu bëggee seen njàng baax suñu bëggee ñu am liggéey am jàppale waruñu taal école yi waruñu taal université yi waruñu yàq li ñu fi liggéey suñu fi defee ay train def fi ay BRT loo xam ne Afrique yëpp a ci bëgg lolu askan bi motax ñu président Macky Sall wala keneen wala gouvernement kon war nañu sàmm ñu leen parce que alalu réew mi moo te dañ ko leb kon loolu dañ ko nous a sàmm suñu bëggee ëllëgu nekk bu gën ci mbokk Sénégal di leen di leen di leen wax a nekk candidat ma taxaw président de la république lu mu laaj ci responsabilité fii ba bés bi terme bi di jeex mooy bu ci yàlla àndee ñaari fan ci avril deux mille vingt quatre dina fekk ñu def élection na nekk élection bu sedd guy bu leer nañ ni Sénégal di defee su ko defee Sénégal continue doxam ci jàmm ak salaam maa ngi ballu ñëpp ak di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam